asalaamaaleykum mbokk ñi déglu ñu ngi fi ci Thiès Info ak TV té nak ñu ngi fi ci centre communautaire d'apprentissage de référence de perfectionnement et de service euh, mu nekk fi nak nga xamantene mom moy mooy Thiès ki ko jité nekk euh, le président Abad Ndiéguène mu nekk nak tay lo xamné ñom amna am luñ fi jot rotal ci li nga xamné moy ay xibaar li jëm ci élection yi nga xamantene mom mo wara tab ki wara jité chambre des métiers bu Thiès euh, ki ko jité actuellement di président Amadou sey ñu wara dem nak ci ay élection am ay jafé jafé ak ay rek rek yo xamné amna ci euh, yoyu préparation donc xamna dañ leen di bàyyi ngeen sétane euh, Thiès Info ak Thiès TV pour mëna a déglu li nga xamné mom mo xew fofu nga xamné mom moy euh, ci centre communautaire bi. que nit bu féké dang koy fal juroom benn at juroom benn at du juroom benn fan. nga war ci fal nit bala nga koy def war nga ko tànn bu baax war nga ko seetlu nit bu baax. parce que juroom benn at yépp yi nga koy tànn boko ci xesse tek ya ko jox arme de manœuvre pour mu mën a sax ci li nga xamné mom mo nek ci pour mën faa sax légui nak ñu tollu nak ci fi tollu phase bu am solo mom moy les élections de la chambre des métiers mu ñu wara falat président bu bess waye lu ko jiitu information yi nga xamné mom la artisan yi wara jot pour préparer pour dem ci élection chambre des métiers yoy information yi la kenn jotul muy président organisation boo xam ne da nga affilié à la chambre des métiers être répertorié à la chambre des métiers fay face à 20 000 francs devoir la pour la chambre des métiers lépp luy la chambre des métiers ñu woo la wax ne la lii dana fi xew ak lii ak lii loolu amul rétention d'information moo am ci ñi nga xam ne ñoo chambre des métiers te artisans yi dem foofu affilié rétention tamit d'information amna négligence amna quelque part ci ñi nga xamné ne autorité administrative yi ngi fi nek nga xamné ñom ño warona joxé information bi nee nañ de publier nañ ko def nañ communiquer ta radio yaangi ni bu fekkee ne ñom jot nañ information bi pour jox ko ko askan wi ah ñu wax wala buñ ko jotul ñu wax parce que bu ñu information defe naa radio yi la utiliser pour joxe information waaye mënuñu nekk 60 000 artisans à Thiès saa yoo tànnee fukki fukki junni nga man leen a laaj kenn ku nekk ni dégguma information bi ah suñ suñu autorité waxee ne joxe nañ information bi mais ñun fan lañ nekkoon déggunu ko kenn déggu ko ci bu ko presse bi waxee it presse baa ngi ni nañ wax ne ñoom dégg nañ ko jox nañ leen ko buñ ko yëgul it ñu xam ne ko deug nak du weesu ay nopp comme que yëguñu ko nak pare wuñu pour dem ci élection yi ci anam bi nga xamné mom lañ ko tëralee. altiné bële passé ça fait une semaine ci lañ yëg ne dañuy clôturer pratiquement les renouvellements ku amul carte de vote chambre des métiers carte yi dañ koy jaay ça se vend carte yi ken mayewu ko dañ koy jaay artisan yi dañ koy jënd artisan yi koy jënd carte bi 5000 francs renouvellement 2500 la est-ce que artisans ñoo ñoo ñuy xool am nañu capacité financière bo xamné tay da nga leen wax ñoom ñepp ñu jóg dem jënd carte bi loolu mënu nek ñoo jox la une semaine pour nga dem Thiès dem Mbour dem kaola num tati tëddi euh, ca dem Tiwaawan dem Ngaay dem Mboro pour récupérer carte artisan yépp renouveler leen defar leen seeni dossier administratif waaw xanaa ñun ay milliardaire la pour mën a am possibilité pour mën a def loolu pratiquement ci une semaine c'est pas possible ça mënul nekk bopp bët du yenu waaye lu bu ñun li tax ñuy wax dañu am cadre unitaire des artisans de la région de Thiès le cadre unitaire des artisans de la région de Thiès a été reconnu par l'État dañu am suñu récépissé on a am droit pour défendre intérêt artisan yi képp ku ko bëgg a nasaxal dañuy am droit pour dénoncer ko devoir si la chambre des métiers l'institution étatique président ba nga c'est un élu il se prend pratiquement comme l'égui un administrateur au lieu de donner l'information comme nga artisan yi mu jox len ko avec honnêteté yalla moy fal jox len ko pratiquement par la démocratie bu pour que ñépp am information bi rétention des formations. Ah et faire des cartes professionnelles. les ah cartes professionnelles yoo xam ne da ngay jël jaaykatu soow defal ko formation pour une semaine jox carte professionnelle boo nga xam ne da ngay dem unité de production ñu validez ko mu ne day voter de l'artisanat promotion l' artisanat loolu mënul yóbbu artisanat bi l'artisanat, il faut voir les corps émergents ñi nga xam si gis nañ ne Ils bu ñu il peut créer de l'emploi emploi ne mën pas mais du c'est pas eux il faut que nous sachions exactement président bi il a fait 9 ans 9 ans lan la def lan def lan def a pour les artisans lan def nous ko il faut un bilan dañu génn ci cadre choix pour ne rek de neex na ma nañ ko jox chambre des métiers bi suñu retraite nous ko amuñu caisse sécurité sociale suñu feebaree suñu atelier yi suñu suñu atelier yi atelier nous mag fait am ay Qui yu bari interlocuteurs sunu interlocuteur direct le président de la chambre des métiers au lieu mu préoccuper pratiquement problème problèmes sur le plan social sur le plan de la formation sur le plan pratiquement moral dalal sen xel pour nous mën à am formation yu pour être compétitif defu ko mi def tout le temps fay bëgg tok ci biir chambre des métiers bi fexé ba am lobbying bo nga tout le temps ñoo fal pour mu continuer pratiquement à la chambre des métiers. 60 000 artisans du Nous ci chambre des métiers. est ce que élection sur 60 000 artisans nous sommes qui président il est légitime je donne un interlocuteur direct 60 000 artisans xaju un loof la ci dañ ci ki mais il faut qu'on revoie comment fonctionne la chambre des métiers. Quand a le programme, a une vision, on a réglé le problème de la chambre des métiers. On a quoi réglé Les on marque le pas, mais on n'avance pas. Les finesse qu'on m'a fait bataille. Depuis 60 000 la chambre des métiers, bataille, tu sais, ni les doré. Or, il faut dire. Nous devons faire un acte fin de l'année. Nous devons faire un acte. Nous devons faire un acte. Nous devons faire un acte. Nous devons faire un acte aussi. Ah oui parce que le gouverneur bi bu fekkee ne moom ci boppam dem nañ waxtaan ak moom beneen comité bi nga xam ne ñoo fi nekk du Bada rek le cadre unitaire ñëpp la fi nekkal je parle avec tout le monde pour tout le monde ñëpp laay waxal parce que cadre unitaire bi dafa ëmb 27 organisations professionnelles sur le plan communal xam nga 17 sur le plan communal 27 sur le plan régional ñun ñëpp ñu bokkandoo ànd doon benn mais mën nañu bañ a bokk objectif mën nañu bañ a

nee naa ko mënul nekk essayé nañu dem tuuti dellu naa fa seet adjoint administratif l'adjoint wax ak moom mu ne ma kat déglu ma dinaa leen woo jël suñu numéro téléphone ñu di ko xaar ba biig ci guddi ñu clôturer pratiquement kon woo sax pour wax sax ne ah ñun kat la ngeen bëggoon mënta am sax amul lañu ñu bëggoon mënta am nii la demee sax amu ci waaw léegi lu ñu bëgg dictature lañu bëgg def nit ñi nit ñi génn nañu foofu passé nañu ko passé nañu ko ñun ñooy stabiliser dëkk bi bu agression amul pratiquement ñoom ñu nekk pratiquement ci établissement yi nekk ci seen jàmm tëdd di nelaw c'est grâce au secteur informel ah c'est grâce au secteur informel ah ñun ñoo tax stabilité am fàqmaan yi karuñu leen nangu seen bagage yi parce que li état bi exclu li li secteur bi di exclure ci njàng mi di ko dàq ñu ngi koy jëlee ci secteur informel bi la dugg pour ñu jàngal leen delloo leen seen ngor ñu mën a gagner seen vie honnêtement ñun loolu la ñuy def mais ñun kan moo ñu récompenser kenn récompenser wu ñu li ñuy def yëpp ñun ñoo koy defal suñu bopp. léegi nag ñun on est libre et autonome ñun ginaaru kenn def noo nenul bu ñu xëyee yàlla la yaakaar ca la ñuy dem ubbi suñu atelier yi di xaar yàlla jox ñu ñu am lu ñu def su suñu kër yi kon xaaruñu kenn ci sunu problème yi waaye nag bu fekkee ne dañoo jagleel kër. ñu jël ko ne ñun fii mooy sunu kër lu ñu wax ñu ne dem leen ci seen kër ga sunu kër ga ñu teg fa koo nga xam ne mënul régler problème artisan yi artisan yi gisuñu fa seen bopp on n'oblige pas pratiquement d'aller à la chambre des métiers pour avoir des cartes professionnelles ci noonu rek pour pour pour voter la chambre de corps chambre des métiers carte yi pour voter rek la est-ce que carte yi pour voter rek la war a doon est-ce que carte yi pour voter rek la war a doon pour voter rek moo tax ñu am carte yi nañ changer système bi ñuy voter

dinañ ko jaral waaye gouverneur bi tontu wunu dem nañ ca niñ ci war a demee léegi nag reste xoolal ñu ngi ne dañuy arrêté carte yi war a électionné le 24 janvier ñu ne dañ le 13 la ñuy bloqué carte yi pour kenn du kenn du kenn du inscrire loolu si di loolu moom mooy lan fan lañ ko teg loolu fan lañ ko teg te élection présidentielle yi am fi ñu dem ubbi fichier bi ñun ñi bindu ba ci yàgg ñu ne ubbiwaat dañ ko joxaat dañ leen pour ñu bind parce que ñun ay xutumbal lañu jànguñu xam nga amuñu niveau yenn yi loolu moo tax ñu ñu teg ñu rek ay xutumbal du sotti ça ne marche pas et ça ne marchera jamais ñu duñ ko nangu tey duñ ko nangu suba te nuñ ko nangu ginnaaw suba léegi nag bu ko defee ah ñu taxaw nanu taxaw nanu taxaw nanu teem teem teem li am dootul amati dootul am warul am fenn ben artisan waru ko sur le plan national ben artisan waru ko sur le plan national dañu japp rek ay xutumbal japp ño xam dañu exclure ci njang mi à la région jeune ñun amuñu ay compétence parce que jànguñu defuñu pratiquement les grandes écoles mais djub jang juba ko gën jang juba ko gën fop nit ko bu djubé loko denk dina fa nek waye bu jangé ba yeey kayit bu jubadee loo ko mu sank ko kon jang juba ko gën fop léegi nak ñun ah dañu jang suñu métier libre pour liggéey suñu liggéey niñ ko wara a liggéey yépp ñu ñu té mënu ñoo wax ñi nga xamné ne dañoo nekk fenen nekk ci ay difficultés yu duñu ko nangu gis nga Thiès duñu ko nangu de duñu ko nangu dañuy bañ dañuy bañ dañoo wara a changer artisanat bi ko amul vision waruñu la kaa jox du problème choix capacité la capacité et une vision pratiquement avoir pratiquement des idées on a fait l'étude de faisabilité du centre communautaire d'apprentissage en 2004 état bi bi mu toogee ba 2015 ci la dogo d'accord né fim ne nit légui l'apprentissage rénové ñu ngi dogo a né artisan yi li ñu xalaatoon en 2004 légui dañ koy tek sur le plan national pour man ko valoriser pour comment man ko tek parce que ñu né ñun am nañu vision ñun ño nek ci métier mi ño ci sonu ño xam nan lañ koy régler bu ñu bolé ci processus bi mu dem bu ñu ci wul sa bloc li ñuy wax plan émergent mais 90 c'est le secteur informel. war nañu xam lan lañ wara war def. 0,2 si nous avons voté pour 60 000 artisans est-ce que c'est cohérent est-ce que maintenant suis là. report pousse pousse pour nous nit sommes nous sommes ji ñu qui bindu ji. là. carte mhm. et puis li metti moins nous clôturer. administrateurs yi kenn liggéeyul police bi kenn liggéeyul gendarmerie ngay dem pour légaliser les cartes sa copie carte d'identité ñu ne wax nañ ko ci télé bi affiché nañ ko léegi li nga affiché ci biir dixième ci biir ñax ya nga affiché fa benn affice waaw léegi bëgg na artisan yi nañ ñëw foofu xool affiche bi te waxoo ne affiché nañ nangam mais ku fay ñëw di ko gis kal la <coughs> mais mais sëñ bi li ñuy wax teguwul question boobu normalement journalistes yi ñoo ci waroon tontu ndax dañu na affaire yi ci presse nañ ko def tay yéen ay presse bi yéen ak sa yéen def nañu ay communiqué pour pour ngeen yëgal ko yëgal ko ñu waaw ah, niveau régional fi ak sa def ngeen ay ki du man rek man may candidat il y a d'autres personnes qui sont candidats dañu inscrire dañu inscrire ñoo dañu inscrire def li ñu am ñun ñu def li ñu am Ça ne veut pas dire que Bada Yegen, il est le candidat du cadre unitaire, ou le cadre unitaire, il a un candidat. Les ñeneen ñi ci des dañu en rade ñeneen ñaa ngi Il y a d'autres opposants qui sont là Dans deux heures et demie ñu dans la chambre des métiers est-ce que ñëpp ñu ngi nelaw amul sax service d'ordre amul sax sécurité ñuy dugal dugal nos carte yi bu incident amoon foofu ku koy régler xaalis bu bari gars yi versé xaalis ay millions xam nga kenn ku nek fayal sa bop directement amul service d'ordre amul assistance amul dara ci ñoo nga xam ñun citoyen lañu ñu ngi participer ci dëkk bi sur événement bu joté dañ ci wara a def def def ko comme niñ ko wara a ak ñeneen ñi. rapport la wax pour lu ñu war def pour inscription yi waxuñu rapport élection yi rapport inscription yi inscription yi mais buñ ko limité mais président bi trois ans mi ngi il a un levier xam et faire des formations yo nga xam neex la koy jox problème mais nañ jox nit ñi tamit temps pour nga xamné dinañ mëna réplique pour que au moins ñun ñëpp même niveau moom mu nga fa ñun ñoko fa tek xam nga moy sunu président d'accord mais problème bi nañ joxe information bi mom limu am mu profito ci mu profito ci mais ñun bu ñu téye information ba mat une semaine ñu naan na ngeen dañuy clôturer rek carte yi mais lutax ñuy clôturer carte yi té décès presque un mois mais lool lool mo ñu gëna a jaaxal loolu mooy problème bi ah lutax lutax ñu bu ko def kut kut ñu bu ko def lutax ñu bu ko def loolu Si vous bu nous avons électionné 60 000 artisans ak ñi nga xam voté le président comme on a il est crédible pratiquement légitime pour diriger 60 000 artisans il faut <laughs> il faut le xool mais ce normal, normal. normal. normalul normalul léegi dañuy pousser nit pratiquement nous, sommes jusqu'au fond ci sen ci sen bir tam nous na ñak ñun nous sommes des artisans waruñu waru ñu xex waru ñu xulo ay problèmes sociaux et économiques yo xamné mu ngi dal ci suñu ko ak suñu famille ba nous on est dans la précarité bo nga ne wuñu ci dara Nous ñun est-ce que nous wara xex ñun ñi nga xamné ñoo ñu loolu ñu le président de la chambre des métiers et avant Balam moom pour être interlocuteur pratiquement pour régler problème artisan Je dama vous jox un exemple mais mais bi fi courant bi ñuy ne courant bi un problème ci régime mais nous, ñoo dem di di di wax presse bi de presse le président il est là-bas il est là-bas Donc, un ci pour que jàppale ñu pour ne ñu sax am nañ interlocuteur vrai pour régler suñu problème mais en président de la chambre des métiers dafa war a doon jaamu artisan yi dafa war a doon jaamu artisan yi bu ko mënul doon nañu wuti kaw nga xam ne mën naa jaamu soxla artisan yi te gis nañ ne Makhtar de wax dëgg yàlla ah ils répondent pas aux attentes des artisans te xam naa ne artisans yi Thiès Thiès ànduñoo ak moom de stratégie pour nous voulons attirer l'attention des autorités pour leur dire que les artisans comptent plus de 60 000 artisans à Thiès. On était 39 660 artisans en 2004. Lorsqu'on faisait l'étude de faisabilité de l'atelier communautaire avec un expert canadien. Au bureau statistique, il y avait 39 660 artisans. Maintenant, on est plus de 60 000 artisans à Thiès. Les 60 000 artisans n'ont pas été informés. Pour être informés de la Chambre des métiers de Thiès, il faut être répertorié à la Chambre des métiers de Thiès. On est répertorié, le répertoire de l'amicale des artisans du métal de la région de Thiès est là depuis 2000, en 2000 on est répertorié en 2000. Je les gardé ici. C'est le répertoire. On doit être informé de tout ce qui se passe à la chambre de métier. C'est un devoir pour la chambre de métier. Pourquoi la chambre de métier n'a pas donné l'information Parce que le président, il a peur. En donnant l'information, il sait très bien que les Tiessois ne sont pas derrière lui. Je suis allé voir le gouverneur pour attirer son attention sur les délais euh, pour les inscriptions. Il m'a répondu que c'est un programme national, il y a un calendrier et tout ce qui s'ensuit. Il y a des spécificités. Dans les élections, nous ne sommes pas nés aujourd'hui. Dans les élections, tout le temps, on, revoit pratiquement le fichier électoral et donne des délais pour que les gens puissent s'inscrire massivement. Ils nous ont, ils ont refusé pratiquement euh, d'élargir pratiquement les délai pour que les artisans puissent au moins s'inscrire. Ça, c'est un problème. On est allé voir l'adjoint au développement. Il nous avait dit que on devait attendre. Il se concerte pour nous donner une information. On est à l'écoute jusqu'à samedi. On a clôturé à minuit. On était là-bas jusqu'à 2h du matin pour déposer les cartes. Il y a des cartes qui n'ont pas été déposé parce que c'était le samedi pour les cartes d'identité. Il faut les légaliser. L'administration ne travaille pas les samedis. Ils ont calculé, tu vois. Ils ont calculé parce qu'on ne peut pas faire des légalisations. La carte d'identité non légalisée, on le rejette. On avait des difficultés. Est-ce qu'on, dans une semaine, dans 4 jours, dans 5 jours, tu peux faire le tour de la région de Thiès de la région de et département jusqu'à Joal à Tiawan, à Mboro inscrire pratiquement tous les artisans dans une semaine d'information ça c'est pas possible ça c'est inadmissible eux ils peuvent pas le faire eux ils obligent les artisans de se décarcasser et perdre pratiquement les élections de la Chambre des métiers. Donc vous exigez que le délai soit prolongé Oui, prolongé. On fait, la forme, on, fait les élections euh, le 24. Pourquoi attendre Le 24, on, arrête les, les, renouvellements. Le 13, le 12, le 13. Décembre. Décembre. Mais, ça, c'est inadmissible. On ne peut pas comprendre ça il faut que les artisans euh, euh, soient réunis tous ensemble pour combattre pratiquement ce que la Chambre des métiers et les administrateurs de la région font pour les artisans. On n'a pas dit que les élections ne vont pas se passer. On n'a pas dit ça. On va aller aux élections. On va aller aux élections. Monsieur Matarsé ne nous fait pas peur nous, si on gagne, on gagne avec la dignité. Si on perd, on perd avec la dignité. Quand on a, fraudé, qu'on n'a pas donné pratiquement des informations claires, tu te crées des ennemis. Et on est, on est 60 000. Après, vous allez voir, vous vous allez faire les décomptes et voir. 0,2% des artisans se sont inscrits. Est-ce qu'il est légitime pour faire une, euh, euh, euh, une, élection. Il faut qu'on revoie ça. C'est ça le problème. La rétention d'informations, ce n'est pas normal. Il fallait donner une information. Une information à la radio, on peut le faire. Parce que les artisans, c'est des illettrés, ils n'ont pas appris l'école, ils n'ont pas fait l'école. 90% ne sont pas instruits. Pour donner une information aux artisans, il faut parler Wolof et donner des communiqués pour qu'on soit clair. On n'a pas entendu pratiquement les informations que l'administrateur a dit qu'il l'a fait. On va aller aux élections, mais attirer l'attention pratiquement du gouverneur. Et lui donner pratiquement une information. Et donner aux autorités administratives, aux autres autorités de revoir pratiquement le fichier électoral de la Chambre des métiers. C'est le président qui détient la machine pour faire des cartes professionnelles. Il faut délocaliser pratiquement la machine et aller donner ça pratiquement à la préfecture pour qu'on fasse les cartes là-bas. Il peut faire des cartes professionnelles. Il faut qu'on rebatte. Voilà. Voilà le problème. Un président de la Chambre des métiers, il a tous les pouvoirs. Il a tous les pouvoirs pour gagner les, les élections de la Chambre des métiers. Mais cette fois-ci, on va se battre. Ce n'est pas Maktar qui va nous faire, qui va nous, euh, faire peur, non. On sait très bien qu'il a fraudé, il a toujours fraudé et il va continuer à frauder. Il faut faire des résultats, il faut faire un bilan. Aller pratiquement dans les radios et faire un bilan. Les 9 ans, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qu'il a fait lui Qu'est-ce qu'il a réalisé pour les artisans Il faut un bilan positif nous avons, nous avons beaucoup fait. Nous avons beaucoup fait. Le fait d'organiser le cadre unitaire des artisans de la région de Thiès, c'est quelque chose. Hein. Signer des protocoles d'accord avec le lycée d'enseignement technique, former 250 chefs d'atelier en menuiserie aluminium. Il n'y a pas de centre de formation au Sénégal et en Afrique en menuiserie aluminium. On a formé plus de 500 chefs d'atelier. On a créé la coopérative d'habitat des artisans de la région de Thiès. On a initié une mutuelle de santé pour les artisans de la région de Thiès. Dans le cadre unitaire des artisans de la région de Thiès. Voilà le problème. Qu'est-ce que la Chambre des métiers a fait sur ces trucs-là Pourtant, quand on faisait pratiquement l'étude de faisabilité, la restitution, on l'a fait dans la Chambre des métiers. Le président était là-bas. Il n'a rien fait. L'étude de faisabilité, on le faisait en 2004. Il était le vice-président de la Chambre des métiers. Qu'est-ce qu'il a fait pour les artisans On a créé notre mutuelle de santé. Qu'est-ce qu'il a fait pour les artisans Mais voilà le problème. La formation professionnelle, on a pu mobiliser 9 millions, 12 millions, 850 000 avec les lycées techniques et former plus de 500 chefs d'atelier. Sans la chambre des métiers. On peut travailler sans la chambre des métiers. La chambre des métiers, c'est une probabilité pour nous. On peut travailler sans la chambre des métiers. Mais on ne laisse pas pratiquement euh, un gars s'approprier pratiquement de la chambre et l'argent que l'État met à la chambre des métiers, c'est notre argent, c'est le contribuable. Hein. On fait partie de cet argent-là. Mais il faut que qu'on soit objectif et clair. On a beaucoup fait. On a travaillé pratiquement dans l'ombre depuis 2000 jusqu'à 2015. vous voyez cet atelier-là, vous voyez ce siège-là, c'est initié par les artisans avec leur propre front. 9 850 000 francs de mobilisation, sans l'aide de personne. Et former 46 chefs d'atelier avec ZIZ en menuiserie aluminium. Ça fait presque deux mois. Le programme PADIA, mais l'atelier là fait partie des ateliers pilotes pour faire la formation. Mais voilà, il faut être ambitieux, il faut être objectif, il faut prendre les chances qu'il faut à la place qu'il faut.